acce nuyu nañ leen bu baax a baax mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yu Lutte TV ñoo ngi fii Zac Mbao wala Mbao seet si ki nga xamante ne moom mooy Gris 2 fekk ko saal fas yéene waxtaan ak moom parce que depuis bi mu jógee ci combat ak léegi digganteem ak doomu dàngu toogaguñu waxtaan ak moom gisuñu ko mu def sortie peut-être nag làmb yi nekkoon ci kanamam moo taxoon mënul def sorti waaye am na beneen làmb bu nekk ci kanamam mu war nekk le 30 juin diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux ñu ñëw saal fekk ko fi di la bàyyi la nga ñu lay seetaan. waaw Lamine ñu lay fay di nuyu téléspectateur u Lutte TV yëpp xam nga di nuyu képp rek di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu ak bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi di leen ñaanal yàlla guddal seen fan may leen wér di ñaanal suñu waajur bu jigéen yàlla guddal fanam may ko wér. di ñaanal sunu waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii yàlla yeesal ne ci kawam ak bépp mbooleem jullit bu mu fa fekk di nuyu waa écurie fas di si jiital sunu président sunu sunu mag sunu papa sunu lépp muy président Abbas Ndoye ak dirigeant yëpp di leen ñaanal jàmm. balaa ma ñëw ak yow ci adversaire yeeg làmb toll damay delluwaat ak yow ginnaaw tuuti sa combat ak doomu dàng bi mu taxawee. bi ngeen def seen première jàkkaarloo da nga waxoon ni balaa yàgg dara da ngay dem France xaw fan ci ci réewu Europe yi pour préparer wu ji dernier moment gis ñu nga dem dan moo tax de moom waaw lu tax carrément dew moom mooy mooy waxu kilifa rek comme li ma lay wax tey waxu kilifa boobu ñu respecté woon tey julal nañu résultat parce ba ñu décidé ne dañuy dem Père Tafa Gueye dafa ne combat yi dafa bëri ñu bëri am combat ngeen dajaloo li nga mën a am fii mënoo ko am foofu si nga dem wéet boo demee mën nga travail travail de corps di nga fa mën a respecter sa régime nangam nangam mais dalante yi nga bëgg affaire compétiteurs yi nga bëgg dalanteeg say moroom yu am combat ngeen di nekk yooyu doo ko fa am quoi bon ñu ñu nit ñu suivre loolu topp ko loolu moo waral sunu ñàkk dem mais amoon nañ visa bu yàgg-yàgg xam nga mais waxu kilifa moo taxoon daal ñu génn ñu réew mi te wax dëgg yàlla gis nañ ci résultat sant nañ ko ci bu baax. lan moo taxoon Bulgarie. Bulgarie parce que damaa xam ne boo gëjee bëre def trois ans sans compétition loolu retour bi dafa war day metti boo seetee mbër yu bëri yu def absence yu yàgg da gis ne buñ ñëwee day feeñ mais pour nga def absence bu yàgg trois ans ñëw te du feeñ loolu dafa laaj benn travail de combat parce combat. yombul waaw tey boo defee absence trois ans si biir géew boo ñëwaatee mën nañ la dóor coup sax boo moytuwul nga daw mbër yi ngay gis yëpp en général ñu jël coup tourné daw parce que gëj koo def la te ñun ay borom jom lañu fi ñu doon bëggoon dem foofu ay combattant dëgg ñoo fa nekk boo demee di nga amaat di nga amaat rythme combat waa parce que di nga dóorante di nga di nga def ay circuit yu bëri yoo xamante ne moo lay delloo si waat normal ba nga xamante ne sa combat absence bi du si feeñ. Hmm. mais sant nañ yàlla bañ toogee fii tamit wax oh, dëgg yàlla ci biir combat bi à part excès de pois amul lenn loo xamante ne feeñ na ko ci wàllum bëre wala ci wàllum xeex. Hmm. xeex nañu bëre nañu sans sans benn manquement. Bulgarie da nga ko mës a nga xam ne ñoom dañu euh, fort ci côté sport de combat moo tax nga amoon choix pour dem. waaw Bulgarie benn benn copain boo xamante ne MMA la doon def dañ doon jàppalante quoi ñoom nag dañ ma doon wax carrément yow boo demee Bulgarie li nga bëgg fa la gaawee affaire yooyu fekk boobu dama leen daan jàppale ñuy am ay combat nekk ville France ñuy nekk foofu di contact ak ñoom ñoom ñu naan ma mois prochain dañuy dem Bulgarie affaire yooyu moo tax mu yàgg nekk sama xel ba ma ci déggoog ñoom tamit ñu wax ma ne ma mën nga ñëw ndax ñun dañ fay dem. pour deux mois affaire yooyu ma bëggoon a ànd ak ñoom. noonu la demee waaye mosoo fa dem daal xam kon yow daal danga doon dem ci kumpa. non daw ma ci kumpa xam naa fa parce que dinañ la won xam nga léegi monde bi moom dafa avancé. fépp foo bëgg dem rek mën nga xam lu fa am. mën nañ la ko wan ay image dinañ la won programme dinañ la wan lépp quoi. moom fa la Europe la nekk. de l'Est la nekk. waaw du dëkk yu kii yooyu yu riche yooyu mais dëkku combattant la quoi. ndax boo seetee am nañ lutte bulgare ak bulgare ak yooyu noonu da dégg ci wàllum entraînement même circuit bulgare yi da nga koy dégg ñu koy wax affaire yooyu ci wàllum bëre tamit bokk nañ si ñi ko dàq ci àdduna bi waaw moo tax foofu daal moom bëgg naa faa dem moom parce que ak fi ma bëgg dem nii ci làmb moom foofu mënu ma faa ñàkk jaar quoi. ok loolu am na solo demoo nga toog fii préparé wu jour yi nga sumee ko gris de gars yi ne poids bi dafa bari wax ko sànq. Mhm. tey yow da nga woon da ngay wàññi poids boobu sa adversaire naan la sa adversaire la mën a wàññi poids lan lan moo tax entraînement da nga dul def physique lu bari wala da ngay lekk lu la neex comme ma ko laaj woon Pam de ne man bàyyi fàlla lu woo man moom xam nga sama combat bi bu salaat bu salaat manqué ci réew mi rek maa ko manqueel ak concombre ak tamaate wax dëgg yàlla yar naa si sama bopp bu baax a baax presque quatre mois yi ma préparé lu bëree bëri dama ko def sacrifice moo tax sax ma toll noonu moo tax damay xool sama bopp si télé bi ba si yàgg ba waa man li ma doon régime anam man bi ma régimul woon xanaa nan laa tolloon quoi avant may wàññeeku nii. parce que loolu yëpp boo nekkee super lourd parce que man du ma poids lourd super laa xam nga boo ko nekkee waroo di toog di bañ a bëre. moo tax ma ne la man bu ma naree defat defati benn année blanche damay bàyyi làmb ci xam ne lii du sport quoi benn milieu tappale la rek boo xamante ne. dañuy joue quoi parce que mënoo di def benn compétition boo xamante ne da ngay toog ay at doo ko def loolu amul fen ci àdduna bi loolu poids léger yi sax la gën a baax ci ñoom ko poids lourd parce que poids lourd munoo wax a wax a wax ba doo jël excès de pois bu ëpp boo xamante ne tey booy préparer benn quatre mois wala cinq mois pour mu deñ c'est tout à fait problème day am problème bu rëy rëy nga ciy jëlee mais poids lourd boo liggéeyul une minute doo ko bëre parce que poids dafa baadoo la boo ko dajul agressé ko carrément keroog li ma bëre xaaj bi xaajaat bi duma ko mën parce que poids ñëpp xam nañ ne dox ak moom wër géew bi sax dox wax ma la daw dox wër géew bi sax boo liggéeyul doo ko mën kon daj ay coono yu bëree bëri képp ku xam sport xam ñu gis ñu ñuy liggéey ak gis ñu ñuy bëree di nga xam ne kii poids am bi daj na ci coono yoo xamante ne bëri na ay borom abdominaux yu taxaw yoo xamante ne tëdd <laughs> tëdd defiyee naa ñoom ñëpp de ku mu neex mën nga ñëw ma tëdd jaaxaan ngay taxaw samay biir di bonde man may taxaw sa biir di bonde ñu xool kuy njëkk bàyyi. ñoo <laughs> koy bàyyi ñu taxaw sa bos rek. dama lay wax parce que man damay liggéey pois lourd bul sonn boo liggéeyul mënoo bouger mètre mënoo def dara parce que poids dafa baadoo la fu ñu la jëmee da nga fay jëm mais dañoo xam loolu moo tax te boroomi jom lañu moo tax lépp lu ñu war ci entraînement dañ koy def mais poids bi moom ñëpp xam nañ ne c'est pas normal du te def nañ sacrifice yu bëree bëri moo tax mu mel noonu mais ñetti at boo toogee bëriwoo ko ci un super lourd su def dañuy feeñ mais yàlla dogal na feeñ na si sama physique mais feeñul si sama ay activité parce que ba ma ñëwee def naa la ma daan def yàlla may ma ndam. adversaire bi bi nga seetaanaatee combat bi ndax am na fu mu mënoon a jaar ubbil nga ko wala wane nga euh, ay ay ay faible ba mënoon fa jaar pour exploiter ko daan ko bi nga seetaanaatee laa mujj wala. non maa ngi koy félicité xam nga di félicité njabootam yëpp parce que dégg naa yaayam wax si cofeel bi mu am ci man di ko wax ne ko wóor na yàlla fii la ëppee bu baax a baax même si doomu dàngu mbër la bu respecté mbër bu am fulla un athlète boo xamante ne bëre woon moom it dafa ma doon neex trop parce que c'est un lion du mbër mooy présenté ne diw laay bëreel ñu ne la ah yaa ko mën dinañ ne la au moins moytul lii xam nga kon kooku champion la ñu ngi koy encouragé bu baax di ko wax ne ko affaire yi moom jën jeexul géej teg ci birig rek bu ma dooroon ma daanu tamit damay jug faxasu rek wuti leneen parce que yàlla mooy séddale xam nga doomu daangu dégg naa sax après combat bi ñu bëri di wax naan da ko waroon déplacé da waroon def nii da ko waroon def nii mais man keroog ba may ñëw si stade bi leer na ma ne tey kii amul fu ma mën a jaar ba daan ma xanaa ndogalu yàlla ñëw tey bu déplacé wu woon ne dafay kii parce que loolu yombul gars yi dañ koy wax mais yombul déplacer nit ki wala dara mel ni ki ngay déplacer benn benn poto bu taxaw la man je prépare ça man bu may ñëw ci làmb li may njëkk prépare mooy ki may dajeel daf maa fas yéene wër-wër loo moo tax dama ciy préparer bu baax mooy aj sama garde préparer samay coup préparer samay déplacement moo tax man keroog loolu soxlaa laa bëgg ko jàppante bi waaw moo tax man keroog wax dëgg yàlla ba may ñëw ci stade bi li ma gëm mooy doomu Dangu ci côté bëre amul sens bu taxawee xeex ak ne amul sens te effectivement noonu la demee bañ jàppante xam naa ne ki ma jàppanteel nii lu mu yàgg yàgg maa koy daan parce que sentir naa ne maa ko ëpp doole. ban ban erreur la def wala deful erreur da nga ko ëpp doole rek. deful erreur parce que dafa taxaw ma aj samay garde xam nga nit balaa nga koy déplacer day fekk koo mën a toucher ma aj sama garde fixé ko taxaw ci kanamam avancé. mu sànni ma sachet ko mu dal sama loxo mu xam ne kii préparé na xeex ma nit ma xob ko dóor ko crochet mu génnee ko ak loxoom mu xam ne kii préparé na xeex mu jàpp sama loxo song tey songu bi moom moo ko bëgg ndax moo téye sama loxo ak man parce que xam na ne taxawaay bi kii taxawaayam baax na ba mu songee tamit xam na ne kii am na am na endurance am na physique bu doy ndax combat bi wax dëgg yàlla yëngalu ma sax waaw. nga daan ko. mu nekkoon sa ñaata victoire sax wala xamoo say victoire. dixième bi yaa naa waaye. dixième. Mhm. mais mais dixième 2011 2013 13 ans. waaw. bëri na xanaa amul saison boo ma sa def deux combats. benn yoon mooy bi ma daanee booy remarqué ak Auguste. déggoo li ma la wax gars yi fi nekk nii ci làmb naan raw naa laa ak karang karang ay ree lañ ma def ndax man làmb li ma ci année balance bu ma ci bëre woon rek kon tey ñii ñëpp maa ngi ci biir ñoom. tafaatin ak ñoom Balla Gaye yooyu tey ñi fi toog ñii yëpp di ratatati mbëri politique yi nekk fii di ratatati yëpp ci trois ans yi lañ fi jàpp ay paa noggatu leen di ratatati mais mel ni te tamit am na si loo xamante ne Lamine da ree daal ba sonn mais mais yàlla baax na ñun daal ñu ngi ci làmb daal di xaar. li dal Gris tamit dafa mel moo la dal xam nga gars bar parfois ñu ni toog na euh, dix ans amul victoire wala deux victoire année blanche dafa mel ni bari na lool lool lool lool ñaar ñëpp. waaw waaw loolu loolu moom mën naa am destin la boo seetee écurie Fass année yii yëpp passé dañ naan ay écurie Fass ni mu meloon wala dara noonu mais gars yi dañuy sóob écurie Fass compétition kese la manqué mais fii mbër yi nekk écurie Fass mënoo ko fi lim beneen écri beneen écurie bu yor ay champion yu toll noonu plus de sept nit yoo xamante ne sept champion yoo xamante ne ñoom ñëpp problème compétition dañ koy am ku ci bëre balaa ngay bëreeti yàllaa xam ñun benn problème boobu lañ am mais amuñu problème mu performance koo ci gis ay victoire am duble na fuuf ay défaitam te ku ci nekk bëri nga tàkkusaan bu nekk mais suñu problème ñun Fass du problème mu performance problème mu compétition la mooy mbëru Fass du bëre balaa muy bëre problème bu rëy la wala bu demee bay am combat sax du am combat bi mu war a am dañuy wut benn booy fële ne wut ko pour escalier nga doon jéem a jaar far mu échec ban mbëru Fass bi ñëw déjouer leen wala déet mais ñun nekkatuñu choix wu comme ça am ay promoteurs yoo xamante ni dañuy suivre écrit bi kon autant niñ ko amee woon mais amul benn écrit boo xamante ne ëpp nañu ay champion. Mm-hmm. kon luy seen problème ba du ngeen bëri gars yi ñooy daw. compétition. non compétition lan moo tax du ngeen compétir gars yi ñooy daw. non xam nga xam nga ma sax instant vent bi dafay am fu muy tourner ay temps promoteur bi mbëru Fass mooy nekk choix am mu wut ku mu ko booleel. bu njëkk ba tey Père Gasson ba mu fiy nekk ak ñoom kii début combat kiiwu carrière Gris wala ay ñoom Père Tafa Gueye ni ñu meloon ci Fass tey jii promoteurs yi fi nekk yeneen ménagères yi ñoo leen di taxawalal seen ay business te ñooñ duñ ménagère waa Fass problème boobu problème monument la boo xamante ne moo ñu sonal ñun écurie fas mais ñun boo seetee mbër bu fi génn fullaak fayda ngay wane ak jom chaque jour ñu ngi def ay exploit mais ana Tiger production parce que doon nekkoon na fi doon doon leen jàppale mais benn moment gisatuñ xam nga affaire yi yombeewul noonu affaire yombeewul noonu xam nga affaire yi noonu te xamaa am tôt xam naa ne làmb dina changé comme que bul buy tourner la rek xam naa du ñàkk dinañ organiser wu ba problème boobu bañ ñoo dalati. am na tamit ñu jàpp ni mobilisation day des trop trop ci mbaru Fass yi lan mooy problème bi yéen yéen dëkk Fass diggante Fass Médina ñaari tali dafa nekk ci ci ay xale. manque de compétition day indi loolu Lamine samay combat yu njëkk ba may bëre ay boy remarque stade bi dafa fees dell bañ tëj ko ba may bëre ak Ablaye Ndiaye stade bi gis nga ko ni mu mel ba may bëre ay ogis kànja tëgg ko stade bi dañ koo tëj mais nit boo toogee ay ñetti at ban comité supporter mooy xaar mbërëm buy bëre ay ñetti at ba ñetti at. man deux ans laay toog du ma bëre bu ma ba ñamaat benn toogaat trois ans ñamaat benn mais loolu fan ngay amee mbooloo. mais que booy ñu ngi leen di gis nañ leen war a gisee parce que gis naa ci benn sinap gars yi boo amee combat del ñëw ñu lay gis xaw ma gis nga xaw ma gis parce que ni ngay amee combat la combat bi ngay am sax dalay bett yow tey boo amul combat toog ay at bëre woo doo sax nekk Dakar làmb sax doo ko lijjanti. ndax yaa ngi si yeneen mbir mënoo ni nekk ci loo xamante ne doo ci jouer doo compétir doo def dara nga toog rek croiser bras di ko xaar waaw da ngay nekk ci yeneen affaire ba tey jii nii waxuma la Médina sax man man mën naa toog at toog naa at boo xamante ne xanaa dakaar xaw ma sax nu mu mel nekk ci yeneen affaire yooyu tey mooy waral nit ñi naan sa absence absence mais tey bu ñu ñëwee toog juge ci combat dalaat ci combat wala dara mais ñun lu ñu am Médina moo ñu ko gënal ak Fass Colobane Gueule seen couleur lañ yor fu ñu mën di nekk ñoom lañu fa taxawal xam nga moo tax lu ñu am ci àdduna dund foofu ak di bokk ak ñoom ambiance moo ñu ko gënal mais absence bi ak toog lu yàgg doo bëre moo tax da ngay dem ba raar ñëpp nekk ci yeneen affaire loolu kese la mais ñun ñii tey bu ñu engouement bii ñu jël di am ay combat bu ñu koy tegle dañuy gisaat suñu ay nit yëpp dañuy ñëwaat taxaw wala ñu am combat bu tax ñu naan combat tey am na combat yoo xamante ne boo ko fi tuddoon léegi ne Gris 2 diw mu taxaw mën naa waat ne Médina kenn du fa des force ñëpp dañuy ñëw supporter si mais combat yi ñu may jox du nekk combat wu tous. combat soog nga bëgg. mais bien sûr. promoteur ñu ngi lay woo. Ah, mais am na promoteur waaw am na moom wax dëgg yàlla promoteur bu ma doon ma wax mais dama ne ko mu wax ak mu wax ak dirigeant yi rek xam nga ñun moom face ci ay loxo lañ nekk. ban promoteur la ñu la tëggoon Baye Ndiaye Gaston production bu ma woo moom daal xaw ma mais daal am na promoteur bu ma woo ba ma ne ko mu woo mu woo Opéra Bass. léegi loolu Opéra Bass. fi ngeen mujjee. ci wax parce que démb rek la ñu mujjee dégg ndax jotuma woon quoi. pour ren na wala déwén. ah xaw xaw ma nag. Ah, mais combat bi ñu la ko wax da nga laaj ren la wala pour déwén. ut ah, non ut ut. daa dañuy bëri fii ba ut. Hmm. ah mais ça dépend daal ñun daal heure bu mu nekk. ñun pare nañ. normalement combat deux mois sax war ko mën a bëre. waaw ah, wax dëgg yàlla combat un mois sax buñ ma ko joxoon ma dem bëre ji. Hmm. koo bëgg a bëree yow. non samay moroom rek samay moroom rek fii amul kenn kuñ fi war a taxaw ñun dañoo ba jot ba def jotee dañoo war a def dañoo ñëw wane suñuy preuve ci làmb xamuñu nag moom sport fan la ñuy wanee preuve mais ci biir géew ñun lañu gëm ne fa nga war a wanee sa bopp. te dëgg yàlla mosuñoo dugg ci géew wane fa ñàkk fayda wala ñàkk jom kon nit ñi ñu war a bëreel gars yi xam nañ ko. Fils de Balla nee na bu ko promoteur fay mu bëree yow. non man man c'est man am na wax yoo xamante ne du ma si sax tardé sama bopp lamin gis nga ñun bu ñu ñëwee di bëre bëriwuñu pour ay pour ay laxas-laxas ni wiiril jekkul ak yooyu ñun dañoo ñëw pour bëgg pourve mooy ñëw gis ay nit yoo xamante ne ay champion yoo xamante ne ay gaynde lañ ñi ngay wax nii ay champion lañ de man bañalu ma leen dara ndax amaana sax ñoo ma dàq affaire yi mais ñooñu dañu tollu ci calcul man gaynde yi nga xamante ne amuñu lu ñuy calculer ay Sa Thiès ah balaa ñu egg balaa egg foofu bu kii bu amoon lu muy calculer dana woote plateau ni pare na pour bëre yow nga ni calcul. waaye lan la si teg xaalis bu bëri moom ay tax a bëre. boo ko déggee muy wax sax déggoo lu ma la wax man man façon yooyu moom wax dëgg yàlla taxuma may wax. man boo déggee may wax mooy mbër yi nga xamante ne tey dañu jaar si diggu ñàngatang bi dajeek ay champion perte si gagné si Alioune de 2 performance bi mu def si làmb mbër yi ñuy tudd fii ñuy ratatati yëpp defuñu ko dafa jaar si digg bi bëreek mbër yi gën a naqaree bëreel ci làmb Sa Thiès pareil même bu dee sax dafa perte si ay Malick ñaaw booy Boy ñaaw yëpp mais dafa daje ak ay moroomam Reug Reug pareil man gaynde yooyu noonu ñooñu xeetu nit yooyu noonu nga xamante ne même buñ ma daanee du ma naqari ñooñu laa bëgg di bëreel mais dafa am catégorie boo xamante ne ay ponkal lañu am nañ doole bari nañ coow def nañ yëpp mais ci politique lañ toll mooy làmbu làmbu làmbu sul bukki sulu bukki ay wéeru ci nit ci kilifa wala ci promoteur pour mu jàllale la man damaa tollul foofu man lim mag ñu njëkk a ñëw doon def ci làmb naan sama doole sama xarit bu ma jàqee ba làmb ko sama xel dal man loolu laay dund damaa gëm ne sport bi may def du reporter moo la mën a jàllale du promoteur moo la mën a jàllale même du fan sa club moo la mën a jàllale sa doole ak sa fulla sa fayda moo la ci mën a jàllale man loolu laa gëm te am na samay moroom yu ko gëm nekk ci làmb man ñooñu laa bëgg bëreel la dëgër de yàlla teggil ko nattoom bi mu nekk ñu bëre loolu ça m'a fait beaucoup de plaisir Sa Thiès bëreeg moom ça m'a fait beaucoup de plaisir Alioune Seye 2 pareil man xeetu làmb yooyu laa bëgg. Alioune Seye day moom sax démb laaj naa ko sa diggante moom nee na moom nee moom beneen a ko gën nee na moom Eumeu la bëgg. waaw mais loolu am nañ ci droit. est-ce yow doo bëgg Eumeu Sène comme ñëpp rek. non man moom moo la benn affaire. mu nee na day bëre yow mais giree koy ngemb suy bëre yow. <laughs> moom man xooluma ci giri sale. mais man Mouhamed laa xamul nu may def ak moom. moom mooy mbëru Mouhamed te Mouhamed c'est mon fils adoré. te mi ngi Fass Touré te xaw ma nu muy def waaw ah, damay bëre mu ne waaw Maodo gars yaa ngi jàpp Yaasin yi nàngam nàngam xaw ma nag bu may bëre ëmb nu muy def te moom ëmb seen rek lay wër <laughs> loolu mu sotal ëmb rek ah, man loolu nag moo may jaaxal quoi mais man moom Lamine man sama philosophie du du ndëkk grand yi man moo wax la loolu gis nga làmb mu ngi bëgg a yàqu te nag yéen da ngeen si am part de responsabilité bu rëy. parce que yéen li ngeen bëgg a def kenn mënu leen ko tere def. parce que yéen am na mbër yoo xamante ne man damaa jàpp ne leen dañuy fay waxkat yi. fay fay loolu ay eh, bàyyi non bàyyi leen seen caaxaan yi ngeen nekkee xam nga loolu da ngeen bëgg a xewal nag loolu ngeen bëgg xewal teg leen ko ci suuf. non non mais mais fii fii yaakaar naa ne kenn ñàkk fi fayda bañ lay wax loo wala ñu lay fay fay pour nga. amiin nañu waxante dëgg fii sport un plus un égal la. gis nga Gris bu tekkee fii di wax lu waxul wala muy ngand ngandalu dañ ko war a wax eh yow pata dong nga toll toqul toppal fële defoo fi dara fii nga yem ak fii bu keneen toogee fii di ngand ngandalu di wax ay waxi dof nga xamante ne du jël mbër mu nekkul ci tolof tolof ay bombardier daan naa bombardier daan naa forza boo xamante ne jëloo forza vrai forza ba déglul ma la jëloo jëloo ay ay soq laa fi daan xeet yooyu après yow nga ne man gaaruwaale non bul gaaruwaale wax ji am na borom ku ko dégg xam ne li ngay wax franco moom boo jaaree ci digg bi. non déggoo li ma la wax man li jëntuwu mbër bu nekk ci làmb. mais dara nga wax li nga wax franco moom doom day li nga wax dama lay wax loo xamante ne ay fee la gis nga ponkal boo tollee ni nga war a toll am jom am fulla ne da nga am fit danga nga war a jaar ci say morom gis nga man rëg-rëg daf ma ameel bor te dina ma ko fay xanaa nga moom sama revanche rëg-rëg rek bu ma ko jëloon bàyyi làmb ma kitoo ak làmbo ñu leer na ma ne yoree luñ ma fi bor ma fi bor mais damaa xam ne làmb dama fee dese bor mais nit ku am jom la bu bëree jotee dafa bëree ñi gën a naqaree bëreel ci làmb ji fekk aw ma defet mu ñëw man tey bu ma doon tappale comme yenn gars yi nii du ma am defet pourtant décembre la daan kii de décembre décembre bi passé la la daan la daan la daan kii la daan la daan bombardier après ba mu bëreeg Elton bëreeg Gris 2 xam nga bëreeg guy gi bëreeg Sa yooyu yëpp c'est des combats de risque ay ngan di combat la bëre ba daanu si moo Sa mais kooku il a mérité de sax gato yi jël jël ci grand yi noos parce que dafa jaar fi mu war a jaar xam nga lan moo tax tey jii nii gars yi nekk fii di neexal grand yi ñu naan ku yaru grand yi may la saas ku réew duñ la may saas parce que dañoo yegsiwul gis nga ku yegg boo reewee dañ lay jël boo yaroo dañ lay jël par force parce que grand yi ci boppam ñooy bëgg bëreeg yow sinon nga dem bàyyi leen fi. ñoom Balla Gaye dégg ma wax la ñoom Balla Gaye ba ñu bëree ba yegsi si ñoom Yékini neexaluñ fi kenn tàpp tàppaluñ ko kenn ndax boobu bëri nañ seen biir ay tournoi rayante seen biir ak ñoom Modou ñoom ñëpp bëree ba dégg daali ba ñu yegsee si grand yi grand bu bañoon bëreeg ñoom ñoom ñoo la fay romb mais tey lan moo tax nit ñi di saraxu da ngay gis kuy neexal grand pour bëreeg moom te ñun ñëpp di ay moroom war mbëkkante làmb bu njëkk ba affaire jom la woon ak fulla mais léegi affaire politique la affaire tappale da ngay wut ñu la waxal wala wut fu wéeru pour di wut foo taqalee pour yéeg loolu du làmb kenn mënu fi kenn mais nañ leen bëree suñu biir. wane jom wane ndànk déglu fii xam nga dangay wax wax ji dafa leer mais Forza Franc daf ko daan daan soq soq xale la am na doole Forza am na doole Tyson 2 nee ma kii la daan ku kenn mosul daan. mais daan na champion ay caa mais daan na mais en tant que xale daan na caat yof. caatu yof eh, ba mu koy daan boo waxee ñu ne la ak Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye daan na Serigne kaw. Serigne Ndiaye da ko mujjee xar yenu ko ba ci kaw dóor ko si suuf. loolu mbappat la mu daanoon démb. tey bu ñu daje woon nii yow mii si Serigne Ndiaye ngay teg. du ma teg Serigne Ndiaye ma ne dafa ndànk dama ne du ma teg ci kenn ma ne. mais no non mais kii. bàyyi bi sport bu suñu sport bi buñ ko yàq nañ ko jàppee ko ñoom ni ko ñoom maam góor gi Njaay doon defee ñoom tubaabu joor ak ñoom ñëpp def ko affaire u jom ak fulla bàyyi politique bi surtout ponkal man d'accord naa benn mbër bu sew tool ni Lamine ñëw am mbooloo ñu ne kii kat nañ ko wutal yoon ndax mbooloowam bi bëgguñu ko yàqal mais un ponkal boo xamante ne tool ngi ne boo solee sa dàllu maam mu jot la nga bëgg fee nekk bëgg nekk benn tappalekat di wut ku la wéeral di napp nit ñi si plateau yi nekk si stade yi mais mës nga gis yow mbër buy ndëkk ay nit samp ndënd def si géew bi lu mat 3 minutes loolu du banaa long. yaram bee tàng rek képp waaw yow dama ne la même bu sa yaram tàngee CNG du la ko may pour mu la ne la affaire yi dafay rax ay banaa long ku lay ndëkk ñu neutraliser ko yéegalal la ko kaw tribune. Ah, pourtant moom fii la. yow fa ngay summeeku waaw déglu ma la. fii la bëgg a dëkk euh, kii rek rek gaa ko. waaw déggoo li ma la wax. yooyu yëpp ay politique la nañ bàyyi moroom yi ñu dalante ñu bàyyi suñu tappale yii nii ñu commencé def si làmb ji bu ñu yàq làmb ji làmb ji góor la woon affaire sañ la woon kenn mënu fi kenn man mënuma fi kenn mais kenn mënuma li war li tax grand yi am si ñun lan moo tax booy yi di yëg grand yi di leen noggatu parce que dañoo jaarul fu ñu war a jaar grand yi bañ fi fekkee seen ay grand dañ leen raxas dañ leen a jàpp daan leen mais booy yi lan moo tax léegi grand yi di ñu noggatu parce que bëriwuñu si suñu biir ku ci am bonalon rek da ngay yéeg ñi ko amul toog foofu di tendeefal. Branlo boobu léegi lan nga tuddee Branlo. Branlo mooy promoteur yu la jàppale ak waxkat yoo xamante ne bu ñu toogee ci yow rek la ñuy wax mel ni yow kese yaay mbër chaque jour ci yow la ñuy débattre. doo wax promoteur yi kii rek bàyyi waxkat yi. non bien sûr ñoom yéen ci yéen yéenay yéenay yéenay sunu batterie sport sport yi ci àdduna bi yëpp fu mu toll reporter ak journaliste sportif moo ko fa yóbbu. sport fu mu mën a yegg ci àdduna ni ngeen mën mën ngeen jël sax mbër boo xamante ne champion dëgg la ngeen yàq ko ngeen rey ko ba mu dee ci communication ndax communication dafa am importance ci ci ci nit moo tax nag loolu yéen da ngeen ci war a gar seen tànk tubéy waruñu mbër bu fël fee rek ne def naa lii def naa lii daan naa bombardier bu am 45 cinq daan naa benn mbër boo xamante ne mu ngi si difficulté après man yéeg naa maa ngi ci kaw mais loolu dafa facile tey boo amoon tey benn mbër bu fël am doole donc Bombardier ak générosité mag ni ko yàlla bindee bu sañoon mbër yëpp dañuy yéeg cour des grands. naa yow dégg naa ñu ngi dox seen combat. waaw mais man du mais man du ma ko jël kooku sama sëriñ la sax sama lépp maa ngi koy nuyu dama lay wax ne la à part Gris Bordeaux ci làmb Bombardier mooy mbër bi nga xamante ne man léppam daf maa neex parce que kon li ma lay wax rek li lu doole di maye góor waru ko négocier. lu jom di maye góor waru ko négocier lu fit di maye ponkal waru koo négocier te Bombardier noonu la dundee carrière am yëpp kenn faralu ko amul mbooloo mu bëri amul dara mais fexe na ba bind histoire am te ci propre loxoom la ko bindee kenn jàppalewu ko mu bind man loolu laa gëm ci un ponkal moo tax ma ne la kooku man dama ko léppam daf ma daf ma référence la ci man mais man je souhaite pas bëree ak ay bombardier wala dara ndax tey bu ma ko daanee ne acca yéeg naa wala dara fi nga xamante ne tappalekat yëpp fa lañ bëgg def porte man si escalier yi laa bëgg a jaar dajeeg sama ay moroom mbëkkante. ci bunt bi nga bëgg jaar bu ko jaar ci fenêtre laa bëgg a jaar jaaruma si faranteer tëbu ma ndax ponkal dafa moomul ay ngolleekook di yéeg ak di wut fu mu dugg ponkal dafa war a jaar si tere bi bu ko yàlla dogalee mu échec mu gëm ne loolu la yàlla dogal. léegi yow yaa Franc bu ñu koy doxee nag. non man lijjantiwuma ñooñu ñooñu ci politique lañ ne man tuddal naa la samay adversaire jàmbaar yi fi nekk di bëre nga xamante ne mosuñoo moytu dañuy bëre bu bëri jotee def seen performance nekkuñu fii di nappeek di wut fenêtre buñ jaar ak yooyu ma ñooñu laa bëgg bëreel mais nag boo ma laajee loo xamante ne ci sport bi laa bokk mais dama dama dama dama ciy wax. ok loo xam ne coow la ak instant bi ci làmb mu diggante euh, Franc ak Eumeu Sène coow li bari na ci yaa ngi koy topp yaakaar naa actualité bi doo champion d'Afrique. Eumeu seen démb ma jël ko mu ne moom bëggoon na bëri ak moom mais communication bi Franc def tax mu ni bëreetul ak moom communication boobu noonu ndax danga ko ci balaamee. man déggoo li ma la wax Lamine man j'ai pas problème avec personne man li jëntuwuma nit ki comportement am ndax waxin kenn mënu si juger nit xam nga li ma la wax man waxin kenn mënu si juger nit nit mën na bañ am savoir parler fekk xolam sax loolu nekku ci. moo tax man du ma jugé comme ça ay franc ci ay waxam ay déliram ci Eumeu Sène parce que loolu boo ko seetee ba seet boppam la yàqal mais yàqalul kenn. mais est-ce que nga ko war non délire la parce que tey nit kiy dem championnat d'Afrique kooku man la demal yow la demal kooku même bu perte ñun ñëpp a perte fii mbër yi dem championnat d'Afrique yëpp ku ko jël ñun ñëpp a ko jël. mais parfois nit ki est doo jéem a heurter sensibilité am pour pour mu mer fépp jël jël jël at. même booy def sensibilité am nga wax ko loo xamante ne c'est personnel nga ne ko yow da nga gaaw a sonn wala nga ne ko yow danga nga màgget wala nangam nangam yooyu d'accord naa ci mais boo waxee ci waxul loo xamante ne da doon défendre couleur nationale boo ci xësee débattre mooy yow yéenewoo sax ñeneen ñi koy def mën nañ ne sax kon kii yéenewul kenn nekk championnat d'Afrique champion d'Afrique parce que boppam rek la ko yéene parce que boo si xasee nit moo yow bëggoo keneen ku ko jël moo tax wax boobu waxu dof la boo xamante ne mën naa am juumte la ci ni mu ko wax ne dafa soxor wala nàngam nangam parce que loolu nit kenn du ko jugé am na nit ñoo xamante ne waxin lañ xamul mais loolu c'est pas raison ne moo tax Eumeu Sène ne du bëreeg moom gis nga fii ku fi yegg si gars yi bëreek yow Eumeu Sène moo tey ñun ku ci jaar fi nga war a jaar ganaar yi ñooy lay wër pour bëgg bëreek bëreeg yow képp ku fi jaar Ama Baldé bi nga xamante ne dafa jaar ci digg bi bëreeg ay tafaatin dugg ci tournoi génn fa kooku tey ba mu bëggee bëreeg Modou yomb na ko. tey ba mu bëggee bëre Gris Bordeaux yomb na ko parce que dafa jaar fi mu war a jaar mais ñun ñi nekk fii ñun ñëpp nag yor suñu ay ngandim doole toll ni ñu war a toll ba pare bëgg a jël ñàkk fulla ak tapet di laqatu ci ay ginnaaw micro ci ay ginnaaw promoteur pour jàll ñun ñoo méritoowul bëre grand yi te li tax méritoowuñu bëre grand yi mooy parce que bëre wuñu si suñu biir dañu war a bëre fëggante ba grand yi di ñu wër xam ne ñii ay jàmbaar lañ comme ni ko Ama Baldé defee comme ni ko Sa defee mais loolu moo jaadu mais bu ñu fi bëggee nekk di taqale di wiiri wiiri di jaay soof ku si nekk yaakaar ne micro moo la mën a may combat wala saraxu ñii di baab grand yi ñii di bourse grand yi loolu amul sens nañu jaar ñoom fi ñu jaar cinq cinq deux combat wu Eumeu Sène moo ëpp valeur carrière u franc yëpp billaay wallaay aller retour u Balla Gaye dong aller retour Balla gay donc moo ëpp mu ëpp valeur carrière u Franc waxuma laa nag aller retour Bombardier yow Bombardier mi nga daan ba tax ngay ngan boobu tax moom muy ngan ngandalu jàpp na yegg na Eumeu Sène da ko aller retour kon kooku est-ce mën nga koo xas ci carrière mën nga koo xas ci performance am na yoo xamante ne ay waxu dof la du waxu nit. xam nga da nga am man damaa mën a am règlement yow Lamine xam nga ma man dof laa man bu ma soñoon moom mu nekku roi des arènes fii bépp mbër bu naa la nga yegg au top mais man bugguma tricheur dama bëgg nit ku taxaw dëggal boppam am ful la même boo bëreewul ak Gris 2 ak ñeneen bëreel ak say moroom nga dalante. moom tricheur. li muy def nii c'est du tricher lii naa promoteur boo xamante ne tey mën na ma. joxal même man bu ma si dul fayeeku lu baax sax mën na ma joxal benn mbër bu am tur xaalis ma bëreeg moom après damay yéeg damay jàll mais loolu c'est du tricher loolu tricher la un champion da ngay am par yoonu champion dama koy wax te dama koy waxaat rëg-rëg dafa am jaar-jaaru champion dafa ñëw seet mbër yi gën a naqaree bëreel bañ ma fi bàyyee ma lamb dafa ne ñëwal ñu bëre def ci preuve ñu ñëw bëre daan ma moom du gàcce ci man donte warumaa daan te lu sama xol sama xel yëpp li si nekk mooy fayu mais dafa daan ay Elton <coughs> mbër yu naqaree bëreel mais kii bëgg fee nekk waaye yow wax leen ko dëgg moo gën. li nga yaa koy wax dëgg yow mi kay ñun kay amuñ ko ñuy wax dëgg yow kay waxal dëgg rek yow kay waxal say dëgg mais yaay imaam kay waxal dëgg. li nga ma war a wax eh Maodo eh li nga wax nii du wax. dama jàpp ni da ngeen am règlement de compte rek. ku dul sama adversaire da nga ma war a wax eh yeggagoo foofu mais fii li ma lay. ah mais mais mais mais yow da nga jàpp ni Franc eggul ci Eumeu Sène. kooku la Franc eggul ci Eumeu Sène. yow yow yow yow may jàmmoo yow xanaa Sa Thiès sax yeggul yeggul sax moom si Sa Thiès waxuma la ak Eumeu Sène Sa Thiès mi déggul ma la ñun ñëpp ay morom lañu ñun dañoo war a yéeg ci grand yi mais li tax ñu yéeg foog ñu mbëkkante foog ñu bëree si sunu biir génn bi leer naññ. nga xam bëre leen yéen ñaar. yow man man déggul ma la man du ma wax ne damaa bëgg bëre kenn ndax man kon li ma la wax sama palmarès kenn du ko tudd ñu ne a cam kenn du ma gis ma bëre ñu ne a cam man loolu moo ma ci intéressé. ah. mais moom mais moom mais moom parce que treize treize combats treize victoire treize combats déggoo li ma la wax man bu ma defoon noonu mën naa dem ba am bu ma defee moom ni muy def mën naa dem ba bëre vingt fois te du ma am défaite. bu doon bañ ma waxee rëg-rëg dama ne oh rëg-rëg maa ko raw. bu doon bañ ma waxee Ablaye Ndiaye dama ne Ablaye Ndiaye maa ko raw Ablaye Ndiaye ba ñuy bëree trois combats la def man ma def six komba ma ne ko kaay ñu bëre. Pakala bañ ko fi bàyyee dama ne leen na ñëw ñu bëre. ñooñu li ñu def ci mbapat bi ñoom ñii defuñu ko fi Pakala bëri na fi deux ans yoo xamante ne mbapat kenn daanu ko ku dul naan 2000 champion d'Afrique bii ñuy wax Auguste da koo jël ba mu sàppi ko te teewul dama dajeek ñoom sama ay moroom yëpp bàyyi leen fi man ma leen di jël di bëreek ñoom mais loolu mooy loolu mooy parcours mais bëgg fee nekk nii di wiiri wiiri di nappaate di kii nangam nangam ku si ku wax gars yi na la da nga soxor wala nangam nangam loolu amul si sport sportif mënul soxor. mais sportif mën na nekk benn con boo xamante ne il sait pas parler xamul li muy wax day tâtonner rek fu mu tourner dóor mais booy dóor da ngay dóor si ay say moroom moo tax tey boo may waxloo ay waxu ay ëmm seen ak yooyu man man tey moom ba mu laalee giri temps yële dégg na ma ñëpp dañ tegoon ne bëgg bëre moom moo tax may bëre mais da doon minimiser giri si ñoo xamante ne même bu ñu amee vingt défaites si digg ñànkatan bi lañ jaar doo dégg benn combat Gris Bordeaux ñu ne la cam ki muy bëreel toujours moom mooy nekk tokaar bi ay xale yu ndaw lay bëreel ay ñoo xam moo leen mag fuuf looloo waral même da ciy am defet te du wàcc parce que day jël ñi mu war a jël. ok le 30 mooy tokaar wala mooy favori. loolu moom ñu ngi koy ñaanal ak yàlla defal ko jàmm loolu daal ñu ngi ci te bu ñëwee dinañ xam ne ñu ngi ci. loolu ngeen wax nag chaque jour bu amee comment nga ne bu ñëwee da ngeen xam ne ñëw na Gris Bordeaux est-ce que le 30 mën nañ gis ci Gris Bordeaux xar kanam bu mel ni ba muy bëree ak Lac de Guiers numéro bu mel ne ba mu bëreeg Bombardier nga xam ne kii maanaam pare na avant mu ñëw ci làmb waaw dama ne la Lamine nee nga sa combat loolu la ñuy wax te sa combat tamit buñ ñëwee nga xam ne ñëw nañ mooy sa combat bu arbitre sifflé nga gis gaynde sa combat bu arbitre sifflé nga gis nit ku am ful la Gris Bordeaux bu doon day ñëw ci géewu làmb di ñàkk fayda wala di def di wane ragal wala dara kon tey kenn du ko jël mais saa duggee ci géewu làmb résultat final loolu ñun ci loxo yàlla lañ ko def parce que ay croyants lañ gëm na yàlla mooy dogal xam nga ñun ban devoir lañu am mooy liggéey ñëw wane fit wane fulla wane fayda mais le rest moom du ñun ñoo koy dogal mais Gris lépp loo xamante ne mooy tax mbër am ndam Gris Bordeaux mu ci te loolu le trent ñëpp dinañ ko gis waaw loolu laa man lu ma la ciy wax. ah na kër ga lool min na kii de Fass de. ah daj na ko de ah Tyson mii noonu na faas te ba mu ñëwee ci Gris dafa jeex. mais Gris Bordeaux war na jàkkaarloog Ama Baldé naan ko maa la ëpp doole mais lool loolu pour day jouer ci xelam rek xale bu ndaw nga nga ngay bëre ak moom naan maa la ëpp doole. koo xamante ne mag nga ko presque presque dafa yëg lu mu mosul woon yëg parce que Gris dafa liggéey nag combat bi def si parce que tey kon li ma la doon wax rek sama problème moo doon problème mooy moom dafa toogoon lu yàgg bëreeg Balla Gaye toog quatre ans bërewul bërewaat ak Balla Gaye xam nga dama la tey jii ñëpp ñëw ne noo Gris Bordeaux nangam nangam parewul entraîné wul ku toog quatre ans xam nga bërewoo compétiroo kooku noo mën a def sa premier combat loolu da ciy feeñ far mu jugee ci combat boobu amaat beneen looloo waral tey liggéey bi continuer mooy tey Gris bu doon tegle ay combat di bëre chaque année au moins mu bëre benn yoon toujours day nekk en forme parce que moom dafa gëm liggéey te dafa xam liggéey. am nga yaakaar ne le 30 juin Gris Bordeaux dina nekk au top. non au deux cent pour cent kay ndax cent pour cent yi moom mat na bu yàgg moom waaw mat na bu yàgg xanaa kay da nga kay dina nekk deux cent pour cent yàlla ko yàlla lafal cat xam nga ba musal ñu si lépp luy dog-dog ba bis ba incha allah. mais instant bi kon pare non moom bu làmb ji doon suba wax dëgg yàlla moom pare na pour. léegi nan lay def na pour kon pour pour maintien te forme bi ba le tanaan parce que teel a pare tamit bëgguma ko ci sportif bi. ah mais moom ay professeur sport ñoo ko yor. écurie Fass écurie bu mag la ñi ko yor duñu ay coach nii rek de ay professeur lañ ñoo xamante ne tey xam nañu boo yéegee xam nañu bu ñu waree wàññi xam nañu bu ñu waree doose xam nañu boo waree tëdd noppalu ko ñoon ñoo ko yor ñoo xamante ne tey chaque jour di lañ xam sa yaram lu ci ne xam nga ñooñ tey ñoo ko yor moo tax côté boobu moom wax dëgg yàlla ragaluma ci dara. amaa ah, ne ko ñi ma daan Fass yëpp ñoo la dàq bëre ba pare ne ko bii mooy gën a yomb. wax jooju noo ko déggee ah moom moom borom sañ-sañ la moom <laughs> moom moom xam nga ne moom moom foo ko fekk ci àdduna mi ngi yëngal te lool moo ko war parce que mooy xale xale moom saa yi boo imposé wul mag ñi kan ngay imposé. ngay yamut ci moom rek ndax nee na ko yow ak Serigne Ndiaye ak Maodo Touré sax la la woowee keroog yéen ñëpp mu leen. ba mu juumee sama tur bi laa xam ne boolewu ma ci xam naa da doon xool rek ku mu gis rek boole la ci jour boobu xam naa li mu. re man. maa ngi na yow sax moo la man yow ak Serigne Ndiaye ji ak Gris Gris Bordeaux yëpp ci même jour moo leen. loolu moom xam nga ne day sóob yow sax xam nga ne moom mi ko wax sax xam na ne day sóob te le 30 moom comme comme mu ngi grand bi le 30 daal na ko wane foofu loolu mooy wax ji. léegi naa am galaaj de. ah galaaj galaaj moom macha allah ñëpp ñëpp ko am. <laughs> moo ñu njabar sama copain nga xamante deux semaines la la feebar. moo tax bu ma toogee dégg ñu bëri naan Lac état bi baaxul état bi baaxul ba léegi des na dama naan leen billaay xamoo leen jàmbaar ji li mu daj parce que Lac Rose deux semaines laa la wax nii xam naa dina ko naqari biir bi di daw yaram no man dama ko doon toog ba si ma na ko yi combat bii nañ ko bàyyi ñu renvoyé ko feebar am na lii boo demee léegi am médical boo seetee Lac Rose yow mi doon ñëw saal xam nga ne di ñëw contact xam nga ne Lac bi nga gisoon muy préparé ak bi ñëw bëre si ak Jackson bokkuñu sax même Pape Ndoye tooy bu méttee métti xam nga kenn du ko jiiñ ay affaire sëriñ mais tooy bu méttee métti Pape Ndoye li mu jël si ay butéel keroog sama combat mi ngi ko fekk clinique ñu koy samp ay butéel Lac ba jouru combat bi biir bee ngi daw. xol bi. est-ce dara rek wala mu naan lu. non dafa tooy di sëqat sëqatu tooy munu sax nelaw ba si sama combat sama jouru combat bi mi ngi bëgg a dee ma naan ko saay combat bi nañ ko jéem a renvoyer mais tey boo gisee Lac Rose nga xamante ne boo xoolee yaram bi sax nga xamante ne tey mook Fils de Balla la gën a kii. te combat bii la gën a liggéey lu bëree bëri tey ni mu bëree sax ci état am état de santé la bëree. ak li mu tooy moo tax mais Lac Rose xam nga ne du mbër muy xaar nit kooku di dóor di kii parce que kon li ma la wax rek fit ak dem ba xam ne combat bi mental moo ma ci mën a génnee fit bu ànd ak xel moo ma ci mën a génne loolu moo ko génne ci combat bi. njabar waaw mais moom li mu doon. ak njabar ak njabar. njabar njabar existé wul am nañ nag ay nit yu baax yoo xamante ne saa yu ñu ñu jóg ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wax dëgg yàlla taxawoon taxawu nañ ñu bu baax a baax a baax a baax. ay nit yoo xamante ne dañu bëgg rek te yàlla tax. man mosuma gis mbër bu ñëw di yor sàngukaay mbàjj indaale mbàjj <laughs> nga gis lu ne. mais mbàjj mais bi laa mosul laa mosul a gis. yow yaa ngi ci làmb lu ne yaa ngi koy gis lu yaa ngi koy gis. mbàjj boobu yëpp daal suñuy cosaan la. waaw ah. léegi lan nga wax waa Fass Médina pour le 30 juin. ah ñoom ñoom miin nañ giri ñoom affaire giri. booy yi dañoo judd fekk ko mu nekk événement booy yi fa nekk tey màgg combat gri dafa nekk un événement pour ñoom boo xamante ne dañ koy xaar xam nga moo tax waa Médina fas Colobane Gueule Tapée Sanel Gibraltar Ndakaaru yëpp laa lay wax ba ay yaraaxat barñeek fu nekk la kaar daan jugee di ñëw di supporter si gris xam nga moo tax ñëpp di leen woo ci combat bi di leen wax ne un combat important la boo xamante ne mbër mi respecté na ko jox na ak jox na ko àq bi mu war a am xam nga di ko si ñaanal yàlla defal ko ci ndam lu sedd guy te incha allah rabbi dina ci am ndam. jaajëf bëgg naa ci yow. waaw bëgg naa di di nuyu nag ñëpp di sant gars yi nga xamante ne Lamine buñ jugee dañuy jug ku si mel ni borom original sunu sunu papa as ndaw nukumaan. kon yaa ngi naan original. non man original rek laay laal moo may jàppale ci énergie bi. ba jour. Cobra bi ak Cobra bi Cobra bi. original moom Cobra. waaw ak Cobra ñoom yooyu ay boisson énergétique la yoo xamante ne dafa am solo te suñu papa as ndaw avant yii yëpp moom daf ñu mës di jàppale ku ci mel ni suñu papa is waaw Ismaïla Ismaïla Mbeng xam nga sunu sunu grand DG DG Ndiaye nga xamante ne moom it yàgg nañ taxawoo grand Massoun Ndiongo xam nga grand alhamdu Ndiaye waa Medina ko su mel ne ay As Thiam borom casino automobile suñu frère xam nga ñoom Pablo Boy ñoom Xayta Seck gars yi nga xamante Cheikh daabo mention spéciale kooku moom. Kër Ndiak dégg naa nga tudd ko ci comment bi dañuy jàpp. non bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla nit ko am gisoo ko sax nit a ne rek xaaral ma wax diw mu jàppale la rek far ci saa si mu ñëwee surprise boo xamante ne yow sax kawe na sa njort. xam nga moo tax moom ñoom it ñu ngi leen di ñaanal muy ñoom Aziz ak Baye ak ñëpp parce que ñooñu. ay mbokk taalibe lañ Baye tamit. mais Aziz jàppagu ci ba léegi yow xool nga après danga koy koj. xam nga nag mooy xalifa général dafay naq góor mooy góor gi ci ruq bi day naqaree gis xam nga mais ñoo ñëpp ay mbokk taalibe lañ ñu ngi leen di ñaanal tamit yàlla yàggal seen taxawaay teg xam nga teg leen loxo tamit ci biir bépp buñ dugg parce que ñoom fierté képp ku nekk ci làmb la rawatina tamit li ñu bokk. xam nga di nuyu sunu waa kër rawatina sama sama yaayu boy yi sama gan yi nga xamante ne tey dañ ko namoon trop awa jon nga xamante ne gëj na gëj na Sénégal yàgg na di ñëw nga xamante ne mooy sunu yaay mooy sunu lépp nekk Milan xam nga di nuyu jëkkëram Mamadou ak Assane Assane sunu mag bi fa nekk xam nga di leen di kontaan trop tamit ci gis leen parce que liñ naan rek taaw bu jigéen mooy yaay te namoon nañ ko trop mu ñëw nag vacances moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw di nuyu suma sama waa gàll yëpp ku lim jum jaajëf ay waay féexal sab xol ah original neexal pour cent pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing du Sénégal ñu ngi rendez-vous le le juillet fii ci place souvenir festival Eric Favre sport santé international